صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مبك جلتي كيف بو خامي دا جانغ الإسلام أن تانك دين جانغ بو خامي تاني جانغ بو تيكو تي دغو لا نيك جانغ بو جانغين بو خامي تاني نيم كوي جانغي دا فا نيك لو خامي تاني تي موتو أيب لا سيتانتال الإسلام جانغات كو أن تانك دين njàngatam boobu ak settantalam boobu dina ko yóbbu ci gis ay particularité ay jagleel yoo xamante ni du ko fekk ci beneen diine ci diine yi nit ñi di diine woo wala ci beneen mën nga wax nizam mooy tëralin bu ñuy tëralal doomu aadama yi ñu koy topp ci kaw suuf du ko fekk ci benn ci yooyu loolu li ko waral mooy ne lislaam dafa nekk diine joo xam ne ci yàlla subhanahu wa taala la jóge yàlla wàcc ko mu nekk ne jaam ñëpp ci lañu war a tënku di ci diin di ko diine woo mu nekk yërmande joo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moom moo leen ko baaxee loolu noonu muy melokaan boobu di melokaanu jóge ci yàlla moom moo tax mu am particularité am jagleel yooyu loolu nga xamante ne l'islam am na ko ci ay jagleel ci ay mbir yoo xam ne da koy ràññatle ak leneen lu dul moom dafa nekk mbir yoo xam ne bu ko nit ki xamee seetantal ko dëgg daf koy puus ci mu bëgg l'islam daf koy puus ci mu bëgg jullit ñi ndax ñenn ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo doon wax naan l'islam li tax mu tas ci àdduna bi mooy dafa jëfandikoo ngànnaay yi li ko doon tax di wax yenn borom dañuy wax ne ñaari mbir la benn bi mooy imma ñàkk xam beneen bi ci des mooy wax lu la neex wax lu la neex mooy li tudd intoxication mooy gis lislaam tas gi muy tas amul benn diine ci histoire doomu aadama bu mës a amee noonu impact ci humanité bi gaawee noonu ci tasam ci kaw suuf léegi bi ñu ko xoolee au lieu que ñu jàngat ko njàngat bu wér bu leen di yóbbu ci réalité bi nga xam ne moo tax lislaam di tas ci kaw suuf ñu bañ loolu bañ a nangu loolu teg ci loolu seen tànk ne déedéet dañoo yoroon seen ngànnaay di dagg bopp nit ñi moo tax nit ñi doon dugg ci diine waaye boo xoolee bu fekkee jàngat nga tasaaroog lislaam ci kaw suuf jamono ji jàmm moo gën a am ci diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoom lañ doon jàppanteel muy seen i noonu jamono jooju nga xam ne jamono jàmm jamono dal la ci la lislaam di gën a tas ci kaw suuf ka jamono joo xamante ne jamono jàppante la kon loolu day wane ne leneen moom moo tax mu tas lu dul ngànnaay leneen la ci des mooy ban ngànnaay la jullit ñi yoroon jullit ñi musuñu woon yor kàttan ci kaw suuf ñi fi nekkoon empire yi fi nekkoon ci jamono ji l'islam di ñëw ñoo ëppoon doole jullit ñi foofu waxuma la sax empire yi fi nekkoon waaye kaw-kaw yi naar yi nga xam ne kaw-kaw yi arab yi nga xam ne rek ñoom ñoo dendoon ak jullit ñi dëkkoon ak ñoom rek bu ñu mësaan a dajaloo yor ngànnaay la ñuy dajale ci ay nit ak ci ngànnaay jullit ñi daawuñu ko am kon l'islam musul jëfandikoo ngànnaay ngir tasaaroo ci ko suuf kon mbir yooyu nga xamante ne bi moom moo nekk ci l'islam ci ay jagleel képp koo xamante ni seetantal na ko xool na ko loolu da ko yóbbu ci mu bëgg lislaam da koy bëgg ci mu wekk jullit ñi respecté seen diine lu dul nag koo xamante ni dafa lànk bañ a nangu li nga xamante ni mooy dëgg dafa am nooneel ak keñaan jamale ko ci kooku mooy ki nga xam ni mooy bañ a reconnaître loolu ba noppi wëlbatiku di jéem a dox ci diggante nit ñi ak ñu xam dëgg-dëgg lan mooy lislaam ndax ragal bu ko xamee loolu pousse leen ci ñu dugg ci lislaam bëgg jullit ñi loolu tax muy nekk di def lan di def intoxication di def lu nga xamante ne bi moom mooy guerre médiatique di ko jëmale ci jullit ñi fu mu toll di jéem a fexe di tuumaal jullit ñi ay yoo xam du seen i jikko nit ki bu xoolee tuuti rek histoire ul islam xam ne amul ñu musa a kaw suuf tabax ci kaw suuf civilisation bu ëpp jàmm jullit ñi bu ëpp jàmm jullit ñi te loolu du wax rek du ñuy wax waaye boo delluwaatee ci historiens yi nga xamante ni ci occidentaux yi nga xamante ni ñoom ñoo jàngat histoire jullit ñi jàngat histoire orient ginnaaw bi nga xamante ne découvrir na civilisation civilisation musulmane li leen gën a jaaxal loolu bokk na ci mooy jàmm gi nekk ci jullit ñi ak yaatu gi nga xam ne yaatu nañ ba xajoo keneen ku ñu koo xamante ne bokkuñu woon ak moom diine exemple bu ciy joxe xoolal yonente bi alayhi salatu wasalaam bi muy yabal saxaaba yi ñu jóge màkka dem xabasha ci kim leen doon yabal du jullit ab nasaraan yi la woon chrétien la woon yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu leen fay yebal da koo seedeel seede boo xam ne da koo dégg ci moom ne dem leen ci suufu xabasha am na benn buur bu fa nekk boo xam ne ku maandu la du nangu ñu tooñ kenn ci moom ñu jóge ci seen i mbokki arab amoon seen i dëkkandoo yi arab yoo xam ne mënoon na leen fa yebal mais defu ko ci nit ku ñuul la leen yebal ci koo xamante ni du jullit la leen yebal xoolul lenn ci loolu li mu xool mooy maanduteem ak mbaaxam la xool alayhi salatu wasalaam loolu ban jamono la yonente bi alayhi salaam def acte bu mel noonu jël ñoo xam ne ci moom lañ bokk di njabootam mu jël leen yóbbu leen ñu dem làqatu ji ci koo xamante ni bokkuñ sax ak moom diine ñu nar a dem dëkk foofu di jonjoog ñoo xam ne du ñu ay jullit loolu yépp yonente bi alayhi salaam dafa ko woon mu nekk problème loolu ku ku nekk ku amul esprit d'ouverture nekk ku tolérant envers les autres doo ko def ku ñëw pour dog baatu nit ñi ren di nit ñi rey nit ñi képp ku la gëmul nga nanga koy rey doo def loolu loolu la yonente bi alayhi salaam def ca ca teel ca tàmbalig lislaam la ko yonente bi alayhi salatu salaam defoon yàlla def ci wooteem kooku noonu tu dugg ci lislaam muy continuer di déggante ak moom alayhi salatu wasalaam nga gis ne kon ki nga xamante ne bi moom moo lànk bañ a nangu loolu day wëlbatiku waat di jéem a tiital nit ñi ak ragalloo nit ñi li nga xamante ni moom mooy lislaam te loolu loolu mu lañ gis ci jamono yu mujj yi ci àdduna occidentaux yi ak seen média yi propagande bi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi koy def di ko jëmale ci julit ñi di ragal loo nit ñi jullit ñi di ragal loo nit ñi lislaam rawatina seeni nit ndax xam nañ ne li nga xam ne moom la ñu am ci jullit ñi ci nit ñi ci àdduna bi comme projet bi ñu am ci àdduna bi li ko mën a gàllankoor benn système la mooy lislaam muy lislaam ci yar bi muy yar nit ñi am fu mu leen di yamloo ak yoon wu mu leen toppaloo boo xamante ni dëppoowul ak ñoom programme bi nga xamante ni am nañ ko ci doomu aadama yi kon bokk na ci xeex biñ koy gën a xeex mooy dox ci diggante nit ñi ak ñu dégg l'islam ak xam lan mooy vrai message du l'islam moo tax yàlla ne ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo wedd yàlla dañ daan wax naan bu leen déglu alquran ji na ngeen fexe jéem a fexe def distraction ba distraire nit ñi ba duñ ko dégg wal xaw fiihi tekkiwul laxwu bi tekkiwul rek bu nit ñi di déglu alquran ci nekk di wax wala di yëkkati seen baat ci bu ñuy jàng alquran ndax la tasma'u li hada alquran loolu yaa ngi koy wax koo xam ne arab la bu dégg li alquran di wax bu ñuy làkk mais jamono juñ toll nii lépp ci nit ñi duñu ay arab kon buñ ne laa tasmau li hada alquran liñ ci nama mooy risalatul quran mooy lii nga xamante ni message bi nga xam ne moom la alquran di jox nit ñi ñu fexe ba loolu bañ a àgg ci ñoom ñu fexe ba distraire nit ñi def ci ñoom seen seen bopp ay mbir yoo xam ne dina tax loolu du àgg ci ñoom loolu ñoom jàpp nañ ni buñ ko defee liñ bëggoon am nañ moo tax mu ne laallakum taxlibun buñ ko defee jàpp nañ ni liñ bëggoon am nañ ko kon am nañ réussite am nañ dam mu waxaat tamit ne dinañ jël seen alal di ko dépenser ngir gàllankoor li nga xam ne mooy yoonu yàlla bi ngir gàllankoor li nga xamante ne mooy jëne suñu borom subhanahu wa taala bu fekkee seetantal nga yooyu nga xamante ni moom la ñuy wax ci ay jagleel te muy waral ci képp ku ko xam loolu indi cofeel bu muy am jëmale ko ci julit ñi nga gis nit mu jekki-jekki di jaxasoog julit ñi dëkk ci société boo xam ne ay julit lañ di leen seetlu ba mu yàgg mu jékki-jékki rek ni ñëw ne damaa bëgg a tuub da koy dem toog ak moom ne ko kan moo la waar kan moo la daaw mu ne kenn waaru lan lan moo tax lu mu seetlu la rek gis ko dem ba am yëg-yëg ci ne ñii li ñuy dund am na lu ci nekk am na lu muy def ci nit loolu noonu pousse ko ci mu xemmeem lislaam pousse ko ci mu bëgg lislaam bu fekkee seetantal nga yooyu nga xam ni moom la ñuy wax bokk na ci bi ci njëkk bi njëkk a wax moo ne lislaam dina la boo xam ne ci yàlla la jóge ni mu mel yàlla moo ko ko def yàlla moom moo sàkk doomu adama yàlla mo xam ban logiciel mo wara a fonctionné lo doomu aadama yàlla mo xam lan moy programme bi mengo ak doomu adama ci ko suuf yàlla mom mo moñ l'islam mu nek sibaratullahi mu moñ l'islam ba mu nek lu mengo ak doomu adama yàlla wacc ko jox ko yonente bi alayhi salatu wasalaam kon fay am ak mat gu ci nekk goo xam ne dafay yëkkati doomu aadama bàggale ko fo xamne amul benen diine wala benen système bo xamanteni mën na lool kon lool mom moy li ci ñëk moy matadi gi ngay fekk ci yi doomu adama yi di xalaatal seen bopp di ko tëral doo ko fekk ci lislaam ndax doomu aadama ak lu ñu xarañ xarañ xarañ ak matadi mi ngi ci moom day jàpp dara ne li lu baax la tey boo ëllëgee mu dindi ko fi bi ko yàlla wàccee ba léegi mi ngi fi doo xool lenn ci ay jàngaleen naan ah lii kat jot jot na léegi ñu changé ko soppeeko ko defee ko nii wala ñu defee ko naan bis bu nekk loo koy gën di settantal ak réew moo mën a nekk di gën seetlu xereñ gi nga xamante ne mi ngi ci ci tëraleen bi nga xam ne tëraleen na ko au contraire boo xoolee li ñuy tuddee tëraleen ak

te loolu yépp leer la boo xam ne ci lislaam lañ ko jëlee kon mat gi nga xamante ni moo ci nekk beneen bi ci des mooy dinu fitra la mooy diine boo xam ne dafa dëppoog nature bu yàlla sàkkee doomu aadama nit ki bu fekkee nature am yàquwul amul problème ci accepter l'islam doomu aadama yi ngay xam ne yépp yàquñu seen nature bi nga xam ne moom la doomu aadama di judduwaale li ci ëpp bu nekkee ak contact ak l'islam rek dafa mel ne l'islam da koy xëcc waaye bu fekkee nature boobu nag dañ koo polluer am lu ca jiitu ci liñ doon wax sànq ci guerre médiatique boobu ak ci wàllu manipulation yi ñu manipuler nit ñi loolu mën na nekk gàllankoor ba nit ki du nangu lislaam mais bu setee rek bu sellee rek nangu ko te loolu mooy li yonent bi alayhi salaam doon wax naan maa min mawludin yuladu illa wa yuladu ala alfitra beneen ba ci des mooy dëppoog doomu aadama ci ay faculté ak mën-mënam ak tëleem l'islam dafa dëppoog loolu yàlla nit la ko jox mu ñëw bi ñu gars yi di wax waxi malaaka yàlla leen du ma indi ay doomu aadama ñoo nekk ci kaw suuf nit bu mel na yéen laa leen di indil mu tolloog yéen ci ay mën-mën tolloog yéen ci coono ak ci lot ngeen mën di jëfe fi muy jëfe mën di ko roy ndax diine ji ma indi indi lu ma ko ay malaaka ay doomu aadama laa ko indi loolu mooy feeñ ci mën gi ngay mën a dund lislaam ci anam boo mën a nekk ak sóoraale gi muy sóoraale sa tële ak say limite yow en tant que doomu aadama ci lépp mbir lépp mbir moo tax nga mën koo jëfe foo mën a nekk lislaam dafa am benn flexibilité bu ci am boo xam ne c'est parce que yàlla da ko tolloole ak suñu mën-mën tolloole ko ak suñuy capacité nekkul diine joo xam dafa ñëw bëgg a jëflante ak yow comme koo xam ne ab malaaka la déedéet voilà benn exemple bu ndaw rek wàllu fase am na diine joo xam ak diine yoo xam amul fase dañu wax ne bu sëy amee fase amul warul am du am l'islam ñëw ne fase am na l'islam ñëw ne fa imsaakun bi maaruf aw tasrixun bi ihsan da ngeen di ànd àndin boo xamante ni bu rafet la wala ngeen tàqalikoo ci kaw njëkk ndax xam na ne ñaari nit bu ñu nekkee ànd léeg-léeg faw ay jafe-jafe dafay am léeg-léeg ay problème day am léeg-léeg incompabil incompatibilité sax dafay am ci ñaar ñoo xamante ni ku nekk xëy na mbaax mën na nekk ci moom mais mënuñoo ànd bu lislaam ubbiwul woon buntu fase kon fitna am problème bu rëy am lan lay indi li muy indi mooy ci diina yooyu ñàkk fase dafa jur ñu bari dañuy ragaladu ko ci sëy ndax xam nañu boo ci duggee dootu ci génn kon lu muy jur da ngay gis ku dem ba am cinquante ans soog a lijjanti naka la wàllu sëy lislaam xam ne loolu kon problème la mu contourné ko loolu mooy wane ni muy rek nekkee loo xamante ni dafay ànd ak di dëppoo ak capacité ak mën-mënu doomu aadama yi loolu ci léppam ci lépp mbir ba ci ngant yi muy ital nit utal nit ki salli qaiman fa in lam tastati fa qaidan fa in lam tastati fa ala jann bu yonente bi alayhi salam da la wax naan la julli taxaw boo mënul nga toog boo mënul nga tëdd c' est parce que dafay ànd ak yow ci say tolluwaay ak sa mën-mën loolu mooy dinul fitra loolu da ngay gisaat mu nekkaat beneen particularité waat encore ci l'islam mu nekkaat na tamit l'islam diine la joo xam ni dafa nekk lu matale mboolem dundu doomu aadama lislaam da ko matal da cee matale dafa ñëw ëmb sa dund yépp ndax qul na salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin ndax bu ñuy wax naan aslamtu wajhi booy wax naan dama jël sama sama jëmm ji jagleel ko yàlla c'est parce que sa dund yépp ci biir lislaam day nekk ba pare nekk tamit loo xamante ni bi lu tolloole la ci ni mu matalee sa dund dafa am lu ñu tuddee tawazun mooy dafa am équilibre du ñëw jël leen jox ko lu ëpp sàggane beneen côté daf naan la yittewal sa àllaaxira waaye bul fàtte sa àdduna Salman dafa wax Abu Darda ne ko guddi gi ngay nekk di ko taxaw doo fàtt fàtte sa njaboot yen doo woor loolu du yoon sa borom dafa am ci yow àq sa bakkan bi am ci yow àq sa njaboot am ci yow àq mu waaxu ba ci yonente bi alayhi salaam ñu wax ko mu ne ko Salman li wax dëgg la loolu mooy lislaam kenn ku nekk nga jox ko àqam lenn lu nekk nga jox ko àqam joxal àq sa boroom joxal àq sa bakkan joxal àq sa njaboot joxal àq sax sa gan gi nga xamante ni moom moo la seet si wala sa dëkkandoo bi nga dëkkal loolu moom mooy équilibre bi ngay fekk ci njàngaleem l'islam mu nekk loo xamante ni lu sew la mu bokkaat yooyu ba léegi mooy maanute gi ngay fekk ci l'islam ak yamale gi muy yamale ci ne du diine boo xamante ni diine yaa ma neex la day yëkkati nit rek ci loo xam ne teguwul ci dara wala mu jël benn xeet ne leen yéen a gën ci kaw suuf comme na ko yahud yi defee yahud yi seen diine lan la leen lan lañ ko jariñoo jël seen diine jàpp ne ñoom ñooy le peuple élu ñoom la yàlla bëgg ñoom la yàlla tànn keneen ku dul ñoom bétail nga bétail lañ leen dañ koy tuddee muy eh, akramakumullah gàtt nga yoo xamante ni comme ni gàtt yi mel nga xam ne jariñoo ak jëfandikoo rek lañ lay doyee noonu nga mel ci yahud yi wa illaa soxla yàlla ci jaam ñi moom ci yahud yi kese la yem diina ju mel noonu naka lañ ko mën a jële di ko askanale yàlla mi nga xam ne moo sàkk jaam ñëpp yemale leen bëgg ci ñoom mbaax bëgg ci ñoom njub melul noonu yonente bi alayhi salaam daf doon wax naan ab arab gëmul gënul ku dul arab ku dul arab gëmul gënul ab arab lu dul ci kaw ragal yàlla ngeen di gënante loolu yaakaar naa waxoon nañ ko fi ci fan yee ci ginnaaw bi nga xamante ne bi abdallah ibne zeyd gis na nodd ga ñëw nettali ko ko daf na ko jox ko bilal moo la ëpp kàddu kii arab la bu weex tàll kii nit ku ñuul la xoolul loolu li mu xool mooy ne liñ soxla ci nodd bilal la ko gën a mën a taxawee li muy ñuul ñuul ñuul nekkoon ab jaam yépp mom la jël tek ko ci jakam bi alayhi salatu salaam mo koy noddal cër bu mel nonu lako ko bi alayhi salatu jox xagn ko ñi ci dess ñep ci sahaba yi parce que xamna ni l'islam dafa tollole bi kenn waxe ci sahaba yi nako yabna sawda yow doomu ku ñur fi daf nako anta innaka imruun fika jahiliya a'ayyartahu bi ummihi ndax dang koy diko tutal diko xasse lo xamanteni ci ndayam la jóge ci ndayam muy walu couleuram nako yow yow ceddo mi ngi ci yow ba legi nit nga koo xam ne ceddo mi ngi ci yow lislaam defaragu la mooy defaroo defaroogu loo nit ku defaru ci lislaam du waxe ni ngay wax loolu moom mooy yamaleeg lislaam loolu mooy yaru lislaam maanute gu mel noonu fan nga koy fekk bis bi benn soxna jëlee alalu jàmbur da daan jël ay yëfi nit di ko àbb ñu koy jox du ko delloo ba nekkoon noble ci biir arab yi ba ñu xam ne kon day jël wax ji jóg ñu ne ba ko yonente bi alayhi salaam yëg ndax bu ko yëgee coow dina am ndax dinañ dagg loxoom ñu ne waaye mënu koo bañ a yëg waaye bu koy yëg nañ nañ nañ yabal kenn koo xamante ni ku mu bëgg la mu dem jéem a fexe wax moom pour mu bañ bañ a teg ci moom atteb yàlla ñu yabal Usaama ibn Zayd Usaama ñëw di wax ci moom naan ko ah, waa soxna si kat moom naa dafa juum rek xam naa li dafa mer ba bët mu ne ko ndax da ngay ñëw loo xam ne atte yàlla bu yàlla wax ne nañ ko teg ci kaw nit la ngay am lenn loo ci ñaan ci njëkk maa ngi wàcc yàlla ne sama doom ji di Faatima bu jëloon alal jàmbur dinaa dagal loxo na ngeen teg ci moom ate atte yàlla loolu la lislaam jàngale loolu fan nga ko fekk ci ban diine wala ci ban ci ban ci ban système bu ñuy topp ci ko su nga fekk lu mel noonu nga xamante ne bi mu lislaam li muy nattee ci nit ñi mooy gëm yàlla gu wér jëf yoo xamante ne jëf yu baax la inna akramakum inda allahi atqaakum li mooy principe bu lislaam ki gën ci yéen fa yàlla mooy ki leen gën a ragal yàlla mu bokkaat ci tamit ba léegi moo ne lislaam li nga xam ne mooy ay source am yi nga xam ne ci la sukkandiku ngir diine woo ko ngir xam ko yàlla da koo sàmm jamono ju nekk yàlla di tàggat ay nit yoo xam ne dañ koy jàng ba xam ko di ko sàmm di ko wat yàlla ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun diina yi fi nekkoon yépp nit ñi dañ ko bu fi yonent yu jógee nit ñi ne ci di dindi di di tawil di ba yàq ko jël di ko jariñoo ci yoo xam ne seen i mbiri àdduna seen intere la taxoon yàlla wàcce ko ñu bàyyi waaye yàlla mi nga xam ne ci xereñam dafa yabal mu jëntaloog yonentam wàcce ci moom diine ji mujj ji nga xam ne yonentu di ñëwaat ginnaawam moom boobu da koo jëlal boppam sàmmal ko boppam ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ñoo koy sàmm yàlla wattu ko mu nekk ne liñ la ciy nettali yépp di ko jëlee ci yonent bi dañ naan la diwa ko wax diw nettali ko ko diw nettali ko mu ne yonent bi ci moom la ko jëlee alayhi salatu wasalaam jokkaloo boobu di chaîne de transmission boobu ci l'islam kase la am amul ci beneen diine liñ lay nettali di ko nettali seen yonent munuñ laa wax ci kan lañ ko déggee kooku ci kan la ko déggee ba mu àgg ci yonent boobu alimam ibn hasm nee na da ngay gis ci al melal wa nihal al fasl fi melal wa nihal day wax ne da ngay gis benn période boo xam dina mat ak plus de cent ans ci diggante nit ak nit duñu xam kan moo nekk ci diggante boobu ci ki net ki nettali mbir jële ko ci yonant ba nettali ko diw nga gis ne kon amuñu chaîne bu bu jokkaloo comme na ko julit ñi amee mu bokkaat ci tamit mooy ne lislaam dina la jox ne day yar ay ñoñam ci kaw ay jikko yoo xam ne jikko yu rafet la nekkin boo xam ne nekkin yu rafet la muy def ci ñoom ay vertu loolu lislaam da ko yitteel lool bi muy wax yonente bi alayhi salaam lan la ko wax wa innaka la ala xuluqin azim ci ay jikko la ko wax ñu koy wax di ko waxaat abdullah ibn abbas ne ala diinin azim diine ji nga yor diine ju màgg la mu tuddee diine ji diine ci boppam jikko la ko tuddee yonente bi alayhi salaam ne ki leen ëpp ngëm yàlla moo leen gën rafet ay jikko loolu nekk sens bu rëy rëy rëy ndax doomu aadama bu yëkkati yëkkatikowul ci lu dul ay jikko diine dafay ñëw pour sàmm nit def ci moom ak nite def ci moom mbaax yi nga xam ne moo koy yëkkati ba soril ko lépp loo xamante ni jëf ak doxaleen ak nekk nu bàyyi ma la léegi nag li nga xamante ni moom moo tax ñu doon wax sànq ne l'islam gàllankoor la ci programme gaa yi mooy ne liñ bëgg a def ci nit ñi léegi ci jamono mooy yàq seeni i yàq seen i nekkin def ci ñoom bànneex ak fo ak caaxaan boo xam ne jiwtu la tur yu rafet modernisme liberté ak yu mel noonu la jëfandikoo yar ci nit ñi ak mbayima bu nekk ci ñoom muy instinct animal bi nekk ci ñoom ñu jël ko yar ko ci ñoom ba seen i bëgg-bëgg ak seen i bànneex boo ko defee seeni xel daal di faatu nite gi nekkoon ci ñoom daal di dañ loolu nag la lislaam bi di bañ moo tax lislaam di sàmm ay nitam tey boo xoolee communauté yi nekk ci àdduna bi doo ci fekk benn communauté buy góor góorlu di sàmm seeni valeur seeni vertu seeni jikko bu mel na jullit yi jullit yi rek ngay fekk ba léegi li ñu imposé ci àdduna bi ci caaxaan ak mbonte ak yàqute ba léegi ñuy continuer di bañ di bañ ne ñoom loolu bëgguñu ko moo tax fu toll ñu leen di diaboliser ànduñu ci ngóor jigéen sàngara bi ànduñ ci ànduñ ci ci ci ci ci carte xaalis ànduñu ci ci ci nàngam ànduñ ñaawtee fii ñuy tasaare ci nit ñi yépp di leen ko doyadalee jullit ñi kese ngay dégg tey ci àdduna ñu taxaw du ko xeex jullit ñi amul keneen kon loolu moo tax lislaam nekk problème mu bokkaat ci tamit mooy diina la boo xam ne day sàmmal doomu aadama ak yëkkati ko ndax boo waxee jikko yooyu wax ne lislaam tere na la lépp looy def lu yàq sam xel ne la sa xel mii moo la daxa nekk doomu aadama ci nga mën a jaamoo yàlla bul def lenn lu koy yàq sàngaraak lépp loo xamante ni lu ko jegale lislaam ne la sori lépp loo xam ne lu lay suufal le di la dooy jël ci ay jikkoog ay nekkin lislaam ne la sori bul ko def kon lislaam rek moo sàmmal doomu aadama ak yëkkatikoom yi nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko mu nekkaat diine joo xam ne diine ju digg doomu la li muy topp mooy le juste milieu du ëppal du yeesal bi ñuy wax daf ne yéen ay nit yu digg doomu ngeen boo xoolee ci mbiru yàlla li la ci jullit di wax lépp mooy yàlla mooy yàlla kenn yàlla mooy suñu borom moo ñu sàkk moo nàngam moo nangam yonent bi yàlla yónni doomu aadama la nit la am na ndey am na bàyyi tudd fi nit ñi di tuddoo yàlla jël ko tànn ko def ko yonentam du ñëw mukk naan la mooy doomu yàlla moom la yàlla jur mooy nangam soxna di woo ko jur yàllaa ko l'islam du def loolu mukk l'islam kon lenn lu nekk da koy teg place kenn ku nekk mu jox ko cëram yàlla mi yàlla mu def ko yàlla wax la mooy kan doomu aadama yi mu wax la kenn ku nekk lan mooy mbiram ne la doomu aadama la kon l'islam digg dina la jox ci njàngaleem yépp dafa nekk lu digg doomu ba ci pratique yi nga xamante ni da nga koy def dafa digg doomu du ñëw di la teg mukk loo xamante ni daf lay day nekk ay yoo xam daf lay dépassé loo ko ci say capacité ba pare di la forcer ne na ko def wala mu ñëw ne la berul dund bi nga bàyyi ko bu takk jabar bu def nangam boo bëggee baax demal beru ji nga nekk ci àll ba ne da ngay jaamu yàlla l'islam doo sant loolu da nga war a vivre en société da ngay nekk ci société bi di jouer ci biir société bi rôle bi nga war a jouer te bi ci njëkk mooy nga samp njaboot yar leen tazawajul walud al walud fa inni mukafirun bikum al umam mu bokkat ci yooyu ba léegi mooy boo xoolee système bi nga xam ne l'islam am na ko ci wàllu économie ndax alal mooy ci la suñu dund sukkandiku wala tuutu sufaha amwalakum allati jaala allahu lakum qiyaman yàlla ñu waxoon mooy ku mënta jëfandikoo alal bu leen ko jox alal ji nga xam ne seen dund ci la sukkandiku kon na ngeen ko jëfandikoo jëfandikoon bu xarañ boo xamanteni dina leen jariñ l'islam ñëw tëral li nga xam ne mooy ay tëralin ci wàllu jëflante ci alal bépp transaction booy def ci jëflante ci alal l'islam wax na la ci yan condition ak ci yan base la war a tegu xam nga ko wala réere nga ko ndax lu bari ci nit ñi yittew loolu joxuñu ko bokk yitte biñ ko war a jox mais transaction yi ñuy def yépp l'islam tëral na ko tëralin yoo xam ne buñ ci sukkandiku woon problème yi ngay dégg ci bulle yi nga xam ne ñooy explosé ak crack yi nga xam ne mooy am ci marché yi crise yi nga xamne moy jekki-jekki am ci aduna bi alal yu bare bare da ci sànq du am ndax léegi dem nañ ba ci virtualité lañ nek économie virtuelle bo xamni monde finance bi jël na économie bi ci aduna bi en otage yore alal judul jeex def ko ci ay ordinateur di spéculer dem ba léegi ñu dem ci ay crypto monnaie yo xamantene ay monnaie virtuelle électronique yo xamni ni fan yi rek FTX di ngeen dégg ben société bo xamantene société américaine bu jékki-jékki ay milliards milliards milliards nak say ay nit ci defon seen alal ñak ko yoo xamante ni lépp lu ko waral mooy ay xale yu ndaw yu génne ci ay école de commerce ci ay université dégg nga ñu naan dafa xereñ dafa muus dégg nga def créer benn système nit ñi jël sa seeni alali alali yoo xam ne liggéey nañ ko lu yàgg jël ko jox la ko nga nekk ci naan da nga koy jël di koy di ko yaxanal jël alal ji di ci fo lu ne nga koy def dañuy fowee alal àdduna bi ndax li ñuy def lépp dara tegu ci ci loo xamante ne lu leer la l'islam dafa ñëw tere kullu bay garar bépp jëflante transaction boo xam ni leerul l'islam daf ko tere saa bu lëndamee rek mun na la bàyyi dafa war a tegu ci lu leer mu wax na ñaar ñiy jënd ak a jaay am nañ choix ci continuer seen jënd ak jaay wala ñu bàyyi bu ñu dëggoo leeral yàlla dafa leen barke ci seen jaay bu ñu nëbbee ñàkk dëggu yàlla dindi barke njaay ma loolu moom mooy tey expliquer problème u àdduna bi ñaari critère la wax mooy tax yàlla def barke ci transaction yi dëggu beneen bi ci des mooy leeral lépp lu ci am bañ a loolu nekk règle boo xamante ni boo ko toppee mën naa sori lool beneen bi ci desaat mooy li mu wax ne laa darara wala dirar bul def loo xam ne daf lay lor waaye tamit bul dugg ci di lor jeneen doomu aadama yi ci des man xasha fa laysa minna ki nga xam ne day tricher bokkul ci ñu yooyu yëpp nekk ay doxalin yoo xam ne bu fekkee jàngoo ko ci lislaam da gis matuk système bi nga xamante ne am na ko ci wàllu économie muy wax ne bul jaay loo yorul balaa boo jëndee dara balaa nga koo jaay na nga ko jël ba récupérer ko ba moom ko soog ko jël ko jaay keneen tey li nekk ci marché yi ci wàllu spéculation yëpp xad ñaari xadis yooyu daf koy régler bul jaay loo moomu laa tabi' maa laysa indak wala laa tabi' maa laa tamlik bi mu waxoon Hakim ibn Hizam ak li mu waxoon ne boo jaayee boo jëndee dara bala nga koo jaay na moo meelu mbir mi ñëw ci yow ba noppi nga soog koo jaayaat léegi loolu lu lu xóot la lu sori la ci ni lislaam jàngale li ñuy tëjee mooy lislaam diine jàmm la diine yërmande la lislaam diine jàmm diine jàmmoo la diine yërmande la li ngay nga njëkk a xam daanaka ci jullit ñi mooy assalaamu aleykum yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax ne irhamu man fi l ard yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi nekk ci kaw suuf bu ko defee yàlla subhanahu wa taala yërëm leen arrahimuuna yarhamuhum rahman ñi nga xam ne dañuy yërëmaate di yërëm jaan ñi yàlla da leen di yërëm benn nit dafa ñëw ne ko su may rendi gàtt damay yëg yërmande ci rendi bi ma koy rendi mu ne ko gàtt bi ngay yërëm di ko rendi di ko yërëm yërmande boobu nga ko yërëm yàlla da la ciy yërëm kuy dégal ñu yërëm gàtt boo xam ne dañ ko war a rendi def ko ndawal alayhi salaatu wasalaam mu doon wax ne du ngeen dugg aljanna te gëmoo leen waaye du ngeen gëm te bëggante woo leen bëggante bëggante baatu bëggante la yonente bi alayhi jëfandikoo kon kooku dafa ñëwoon di yar nit ñi ci kaw bëggante ndax bu demee bay def suñu ngëm yàlla mu ci poser condition ne pour ñu mën a gëm gëm ko ñu dugal aljanna foog ñu bëggante kooku kon yitteem sori na ci doomu aadama yi kooku li mu bëgg liggéey ci nit ñi lu rëy la ndax ku ñëw di wax nit ñi seen ngëm gi leen dugal àjjana du mat te bëggante woo leen kon ban ban société la bëgg a yar société boo xam ci ko amour la tegu ci kaw bëggante la tegu baat bu ñu jëfandikoo loolu ci àdduna bi mais ñu ñi xamuñ sax sens leneen lim ci teg mooy ndax duma leen wan loo xam ne su ngeen ko defee da ngeen bëggante afshu salaama ko tasaare leen jàmm tasaare leen nuyoo ci seen biir ndax boo neen nuyoo nga ko tekkee ne assalaam li muy tekki mooy nuyoo ci jàmm lay lay tegu ndax booy nuyu nit ci jul ci lislaam danga koy ñaanal yàlla jàmm kon ba léegi tasaare jàmm rek lañ koy tekkee xadis boobu kon koo xam ne da nga ne condition bi tax ñu mën a dugg aljanna mooy ñu tasaare jàmm ci ko suuf kooku sa message mën nañ ko résumer ci kaw jàmm lii nag bu fekkee nit ki comprendre na ko dina comprendre coow lu bëri yépp li ñuy coow ci lislaam ak ragal gi ñu ragal jullit ñi ak ragal gi ñu ragal lislaam yàlla nañ yàlla may dëgg dëgg dëgg ñu dégg ko te mën a nekk ay porteurs yoo xamante ne dañuy porter message bi ba mën ko xamee ñun gisee ko ci ñun façon bu rafet a rafet yàlla nañ ko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 الله